koy tuddee tamit mu mat ko xaw ma yar yooyu yëpp na fekk mu mat ko waaye bul ko jaay tax manqué na ca nga mooy tundiku riba bu nit koy di la leb bul tundiku riba riba mooy mën naa laa lebal cinq mille tey bu weer wi dee tey six mille nga may fay wala mun naa laa lebal un million suñu bàyyee fi ak six mois boo ma koy delloo teg ci deux cent mille wala cinq yàlla ne dafa niru luy yokk waaye luy saraxe ak mayeeg leble te yàlla rek tax dafa niru luy wàññeeku waaye luy yokk la yamxaqullahu riba wa yurbi sadaqa xam nga yore leble ko ñi fay la 600 francs dafa niru luy yokk yore téeméer 250 wala cent yem dafa niru luy wàññeeku yàlla ne lii mooy ak yokkute lii niru yokkute mooy ak wàññeeku yaay yëpp maanaam nga moytandiku ko yonentu bi dafa bëggoon marché yi yoon. Umar ibn Xattaab mu tàng mi la jëloon marché Madinatul Munawwara teg ko moo doon yore marché ba ci lépp lu ñu war a jëfandikoo ca marché ba moo war a jaay lu ñu war a jaay len lu nekk lu ñu koy war a jaayee ak ñi nga xam ne dañ ay trian dugg ci Omar a koy réglé mu ne ndaw marché buy tàng duñ fa jaay sàngara duñ fa jaay yàpp mbaam xuux duñ fa jaay drogue duñ fa jaay lépp loo xam ne bu ko doom aadama yoree mën a lor nit ñi bu fa jaay ay xar yoo xam ne dañ koo rey te maanaam seetuñu médecin bu ko xool ndax amewul jàngoro duñ ko jël tamit di ko rendi foo xam ne bu ruñ faa yegg jël nekk ca nañ ko war a muuree nit ñi lekk ko ak lenn di nga jëlee ca lekk ko jëlee feebar yooyu yëpp dañ ko war a moytu alquran bàyyiwul kon nag yonentu yàlla bu la yàlla yónni woon ci ñii ñu yore melokaan yi weddi yonentu yàlla Soxaybu leen yàlla ni leen du mu leen ñaanalee yàlla xam nga lan moo dal seen kaw tàngoor yàlla ji teg semaine boo xam ne dafa tàng kenn mu jigi mënu tàngoor bi wi mu jigi tàngoor wi dem ba seen deru tànk yi ngir tàngoor su ñu demee nëbbutu ci seen néeg toog fa foofa gën a tàng ñu dem ci roon garab yi mu tàng tàngoor wi dem na ba ndox jéej gi mujj na di ñiis boo jëlee potu ndox léegi teg ko ci sa véranda teg ko ci saal bi léegi balaa teg trois minutes tàngoor wa ñiisal ndox ma kon mooma ndox da mooma tàngoor ba tàngoor wi ñoom nag mu di mat semaine yàlla ji xëy rek rëdd benn xiin benn niir mu ànd ak sedd nag kontaan Ah, sedd bi ñëw ñëpp ñu nekk ca niir wa muy upp ngelaw lu neex ñi ko mun mumtiru naa yàlla ne déedéet bal huwa mastaxi riihun azabun alim tiim niir wa rek ak ñuulaay gaag ndox mu mi maanaam muy sotti mu ànd ak tàngoor ak mu ànd ak kon sedd ngelaw la kenn ku ci nekk di lu ba nooyi war rek niir wa tàkk seen kaw ñoom ñëpp ñu dee ba mel ni euh, yow mu jël kawar dugal ko ci dugal ko ci safara ni mu koy lakkee bi niir wa tàkkee noonu la ñuy seeyee ñoom ñëpp kon noonu la yàlla alagee asxaabul ayka waaye su fekkee nag Madiyana moom xaacug Jibril yàlla dafa def Jibril mu xaacu leen ñoom ñëpp ñu alku fa asbahu fi daarihim jaathimina kon ñoom ñaar ñi lañ ko yónni woon waaye ñii dañ leen alak ci niir ñii ñi alak leen ci xaacug Jibril ñooñu ñooy maanaam euh, maanaam nitu yonantu yàlla Suaybu ya kon nag mën ngaa teg sa baaraam ma firi ko wax naa la kon jaar-jaar yi li ci aju moo tax mu ne kazaba weddina asxaabu laykati mbooloom gott ba al mursalina yonantu ya gott ba ni woon yonantu yàlla ay soxaybu bi mu demee weddi nañ ko buñ ko weddee rek weddi nañ Moussa weddi nañ Isa weddi nañ Sayyiduna Muhammad ndax yonantu yëpp ñoo bokkul lu ñuy wax ñoo bokk lu ñuy woote kenn ko ci weddi waliyu yi kenn ko ci weddi weddi nga ñëpp da ngay bokk ñëpp ku la yàlla féetaleeg tamit